الحمد لله الكريم في المنن على استفاد بفرد وسنن ذكرته لأنه قد ساهني لوطني به نفى yoon sax moom la ko sax di ko ay gaal waaye ñaar léegi moo am yoo xam ne ginnaaw

Можно kër par kër ba mu yegg kon kon yaakaar naa ne lépp dana aw yoon ndax kër yi day daal di mat njaboot gi daal di na kon nag ñu ngi leen koy dénk bu baax a baax nee ba noppi nee na digal na sëriñ ba sant ko doon mu def ci ay wax wax ji itam li mu ko wax loolu dana leen ko wax kon nag nee na moom looloo tax ñu gàttal ay wax nee na yéen ñëpp da ngeen ñaan yàlla Olha, jigéen bi doole lañ gisaat dafa si ne am yoon bu baax te waxtu yu dëgg noonu wooram ndax dafa bokk ci bayaan ci leeral xam-xam marché suuf ñëpp te tàllal koy loxo mu jéggal ndax moom yërmande la bindee boppam yàlla yi yow nag ku doon naa si imaam yi kenn ku nekk daañu la woo sëñ yi mu taxaw ñu laaj bu yor sëñ bi sëñ bi waaw sëñ bi ñun nag sëñ Tuubaa mbokk yi kon kàddu ci sa gannaaw nga bëgg liggéeyal borom daaru muuti nga ànd kook taalibe yi ba yeggale ko ci sa njort doo day mbàkkee nunguloon nga sa kilifa yi fi kon bi ngay kilifa la ñaanal nga fi te amin amin amin kon Serigne Bassirou mooy ñaan yi fu waay nekk ci monde bi rek mën nga dal te wax amit euh,